yi di dal leen ak ci li gëna fess fës ci yéenekaay yi ci xibaaru tagat yaram yi ak 13 TV tàmbale ko ak stade yéenekaay mi wax ci arrivé équipe nationale bi ci Bafoussam ni ki démb ci goudi 19 Lions ñom ñoo exi 9 yi daal di absenté lepp li nga xamné ne mo ñëwaat ci film arrivé délégation bi visage yu fermé yu gaynde yi joueurs yi nga xamné ne dañoo dugg ci bus bi te waxuñu ak benn taskatu xibaar joueurs yi nga xamné ñoo dess ci Dakar ak seeni tour Boulaye Dia Mustapha Naam ñom tay ji ci jeudi gi lañ leen di xaar ci ca Bafoussam record yéenekaay

dañoo amé Covid 19. las en 2022 bi stage annulé cas multiple Covid 19 imprévu yi nga xam ñom ñoo perturber tanière bi dik nañ ci ñom suñu yi 14 cas positif ci tanière bi biñu tambalé préparation beeg léegi stade yéene kaay moo ñu ko xamal ne Bamba Dieng ak Pape Matar sar bokku nañ ci jour yi ko amé woon Covid moy adversaire invisible bu gaynde yi délégation sénégalaise bi di ragal don ab cluster Manam fo xamné jour yu bari dañu fay di am Covid 19 diko walanté a fexe rek ba éviter li nga xam ne moom moo dal gambe mi nga xam ne daanaka équipe am bi yëpp dañoo amee Covid 19 gaynde yi ak nu ci mën a doon ngir bañ am benn jafe-jafe bu leen sonal foofee ca Bafoussam lu tolloog ñaari tonnes matériel la ñu fa yóbbaale ci lu jëm ci wàllum logistique bi kan 2022 bi stade ne ginnaaw ba Crépin forfait iso incertain Bouna Sarr moo nar a doon beneen solution bi ci el yi Ismaïla moom suñu naataango yu stade yi ne mën nañoo xamle ne pareegul ngir kan bi ndax démb ci aéroport bu Bafoussam mu doon dugg si da doon soox tuuti l' observateur di wax Aliou Cissé ak Coupe d' Afrique bi nga xam ne daf koy dundee sous pression ndax bu jëlul coupe bi faaw rek mu daal di able plan de travail joueurs yi nga xam ne dañ leen a infecté ñu bàyyi leen ca Dakar Lamine Diatta ak Tony Silva ñoo doon veillé ci ñoom ñu bàyyi loolu wax ci kenn ci gaynde yi FIFA The Best 2021 Mendy nominé nañ ko ci ñetti finaliste yi ci poste gardien de but bi ba tey ci réew mi quotidien sport plus ñuy wax ne Bamba Dieng jamono ji moom mooy Sadio Mané bu bees bi nga xam ne waa Premier League ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax baax stade yéen kayit wax ci FIFA de best beeg euh, Mendy mi nga xam ne mu ngi ci ñetti finaliste ngir gardien de l'année 2021 bi Serie A journée bi record nañu Naples ak podium bi ñu ngi en danger ca Turin choc explosive Milan AC AS Rome ca San moom it ñoo koy xaar ñu deexale ak wàllu làmb record yéen kaay des moom mi wax ci recours bi Bombardier defoon ci euh, kaw CRD bi chute Balla Gaye 2 bi validé nañu ko Sitor Ndour ñu daal weddi décision bi nga xam ne jëloon na ko sunu làmb jàkkaarloog presse bi tey jii ci ngoon moom roi des arènes bi ci teewaayu ki nga xam ne moom mooy Luc Nicolaï colonel Samba ci biir yéenekaayu làmb ji wax ci ndam li nga xam ne ji am na ko ci Balla Gaye 2 mu ne Balla Gaye 2 dafa war a setal li nga xam ne moom mooy entourage am Aziz Ndiaye mu ne amul place ci biir enceinte làmb ji mbokkee xarit yi lii leen indiloon ci li gën a fas ci xibaaru tàggat yaram yi ak 13 TV jaajëfal leen bu baax ci